il faudrait que ñu xam ne bu ñuy wax naan way le conseil constitutionnel a désavoué ñu bari ñu ngi doon wax a désavoué le président de non mais attends président de la république. bu dul désavoué ma président de la république. bu dul désavoué lan la président de la république non déglu ma <laughs> président de la. bu dul désavoué lan la président de la république. may mun a damay fàttali ne en 2016 moo créé woon conseil constitutionnel mais en 2016 le président de la république moo yokk même les pouvoirs. du conseil constitutionnel pouvoir d'avis ci référendum boobu la indi muy benn yokk li nga xamante ni mooy le nombre du des membres du conseil constitutionnel pourquoi parce que dafa jàpp ne conseil constitutionnel daf ko war a dëgëral donc je pense que cet kuy wax naan dafa bëgg a noot yoon wala dafa bëgg a def naka sudul noonu wala il veut se maintenir au pouvoir comment quelqu'un qui a fait douze ans à la tête d'un pays avec deux mandats taxaw publiquement renoncer à faire un autre mandat boo xam ne constitution bi joxoon na ko ci yoon. mu wax amu ci yoon amu ci ah, droit non déglu ma non may mun nag danga may bàyyi ma àggale. s'il vous plaît ma amu euh, président n'avait pas le président de la République Macky Sall n'avait pas droit à un troisième mandat maintenant bu leen neexee ngeen rafetal wax bi pour seddal seen xol. mais ñaari mandat la am droit def na ko jeex na. mën naa àggale je dis que quelqu'un qui a à faire un autre mandat boo xamante ni la constitution lui en donné droit. un mandat de trop. est-ce que un mandat illégal cet homme mën na parce que man je pense que en général débat soo gisee mu daan am nit di wax di ko dagg ñi daan débattre la mais je pense bu ma posé question yow muy journaliste da may bàyyi ma àggal. waaw mais mënoo toog fii nga nekk législateur con euh, article 27 wax ne le président de la République est élu pour une durée de cinq ans nul ne peut faire plus de deux euh, nga toog fii dama naan le président de la République avait droit à un troisième mandat. maintenant bu fekkee ne cette question là elle est tranchée. su fekkee ne président Macky Sall dafa renoncer à un autre mandat boo xam ne constitutionnellement am na ci droit je pense que cet homme su ñu toogee naan il veut se maintenir au pouvoir pour six mois pour dix mois c'est vraiment mépriser même wala insulter l'intelligence des Sénégalais parce que sénégalais yi ci boppam. xam nañ ne lu président Macky Sall bu dee état de droit renforcé ko bu dee pouvoir judiciaire jox ko cëram bu dee république boo xamante ni nii dafa am ay cëslaa yu wóor je pense que mën nañu wax ne c'est une référence mais mais mais Abdou Mbow conseil constitutionnel bi nga xam ne moom mooy euh, moom mooy analyser la constitutionnalité des lois moom bi nga xam ne en matière électorale moom moo am suprématie président de la république ak pouvar yi mu am yëpp bu conseil constitutionnel délibéré président de la république def communiqué ne je prends acte et je vais exécuter pleinement les décisions du du conseil constitutionnel mais non seulement ça grandit le conseil constitutionnel wane na ne suñuy institution ñu ngi ñu ngi ñu ngi fonctionner mais tamit ça grandit le président de la république pourquoi pourquoi ngeen bëgg ko xoolee neneen mais attends mais c'est ce que du désaveu ça le grandi non non non non non yow yaa wax désaveu dama ne la ñiy wax ne désaveu la loolu laa la wax xam nga président de la république c'est le garant du bon fonctionnement des pouvoirs publics il a écrit pour dire je prends acte dama la bëgg a wax ne quelqu'un qui a créé les conditions pour que conseil constitutionnel mën a am quand même pouvoir pour gën a mën a taxaw ci démocratie dama ne kooku du soofantal pouvoir judiciaire. mais mais mais du soofantal conseil constitutionnel. c'est que loolu laa bëgg wax dama bëgg wax ne. il faudrait que les Sénégalais sachent que Macky Sall c'est un grand monsieur. mais mais mais il l'a encore